bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alxaalil amin sayidna wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi wa sallama yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bu nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sant a cheikhul xadim eh, noo teew ci Tuubaa Daarul Xuddus kër Baay Faal Ngiig Baye Serigne Fall Ngik moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma Baye Serigne Fall Ngik bokk ci njabootu Ngik Fall ñu fas yéene am moom ab jataay ni ko kilifa yi sàkkoo muy ab gëstu bu yaatu ci barab bu sell barab bu tedd muy barab boo xam ni barabub Seexul Xadim la barabub nit yàlla yépp la muy daarul xuddus bayti yàlla def na nag jëmm ji toog moom nekkoon na fa bokkoon na ci ñi nga xam ni nekkoon nañ bayti tey jii buñ dee gëstu mag ñi nga xam ni ñoo fi desandi te nekkoon fa yaakaar naa néew na lool waaye yàlla defal nañu tawféex mu bokk ci ñi nga xam ni eh, nekk na fa ak Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma lu ëpp ñaar fukki at ak ñett yoo xamante nii ba mu jugee daara ja ba ni Serigne Cheikh wàcceeb liggéey buñ ko xoolee ñaar fukki ak ñett la incha allahu taala bàyyi Serigne Fall ngi mii nag ñu defal leen benn présentation bu gàtt ci moom rek doom la ci sëriñ Makhtar Fall moom sëriñ Ngig Mouhamadou Habsa Fall sëriñ Ngig Mouhamadou Habsa Fall moom nag bokkoon ci mag ñi fekkoon sëriñ Touba xumaag sëriñ Touba gërëm ko seexal ko bàyyi sëriñ Fall Ngig mi nag way juróom dafa teel a wàcc bu liggéey muy sëriñ Makhtar Fall magu waa juróom di sëriñ Mayoro Fall Ngig moo ko yar moo ko defal lépp sëriñ Mayoro Fall moom nag bi mu wàccee ab liggéey en 1955. ca Ngig Fall bañ ko waajalee ba jëbbal ko borom ba xew-xew ya jàll nag ci la sëriñ si Ahmadou Mbacke Gaïndé Fatma joxe ndigal moom mii ak magam ji ñuy wax sëriñ Mayrof sëriñ Moustapha Fall ñoom ñaar ñu indi leen ci daara ji ku ñuy wax sëriñ Masataloo moo leen fi indi booba sëriñ Cheikh dafa nekk ci ab tukki ñu ànd ci tukki ba ba ñu tolloo Kabdu nag dëkk bu ñuy wax Kabdu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke jox ndigal sëriñ Moustapha Diop njëkk ne ko yóbbu leen Touba kër sëriñ Abdou Dia fii ci kër Serigne Abdou Dia Touba Daaru Xuddus nekk nañ fi ay weer gannaaw bi nag la Serigne Cheikh Mbacke ñëw joxal leen ndigal ngir ñu dem dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam Jolof ci daari Serigne Bassirou caan mu nekk fa gannaaw ba mu nekk daari Serigne Habibou Dieng nekkoon na fa ñu baree bari ku ci mel ne Serigne Moustapha Fall Serigne Abdou Guèye Serigne Sawru Guèye euh, nekkoon na itam sëriñ Sawru Ndoy Serigne Moustapha Dieng lay jeena ñu baree bari la fa bokkaloon nekk. waaye foofe nag fa la nekk ba ni yàlla dogalee ci 1960 muy at mi natte Touba Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma nag indilu eh, ko Touba loolu nag mi ngi jaar ci làmmiñu Baye Mbacké Fall waajuru Moustapha Kamal Fall rahmatullahi alayhima Baye Mbacké Fall wax Serigne Cheikh ne ko nag gone gu sawar te yarut amum xel ngir mu jàppale Serigne Cheikh Diop mi fi nekk ci loolu nag ci la Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma eh, joxe ndigal bàyyi Serigne Fall ngi mi mu toog ba nattee dëkk bi moom delluwaatul kon 1960 ba 1978 18 ans yooyu fukki at ak juróom-ñett yooyu tàggoote Serigne Cheikh Mbacke ci biir bayti mu yor lépp Serigne Cheikh Serigne Cheikh itam sësale woon ko ci boppam ba am na ci yoo xam ne am na lu mën a wax am na lu mënta wax waaye lépp lu ci mën a feeñ ci diggam ak Serigne Cheikh ak bayti nag war ma ci Serigne Cheikh joxoon bayti ak wàccuwaay bi ñu war a jox bayti ak lim gisoon Serigne Cheikh daan ko wax ci bayti. ak la daan feeñ ci ba ak moom itam ba mu fa nekk lañ ko fa daan wan loolu Baye Sëriñ lañ bëgg mu dikk ceeg ñun incha allahu taala ndax bayti day kër goo xam ne këru Cheikhul Khadim la kër goo xam ne sallallahu alayhi wa fekk na ko fi di kër gu sell Serigne Cheikh Mbacke itam warmaaloon ko lool ak mboolem ay rakkam Baye Sëriñ mii nag ci 1960 ba 1978 tàgguwu fekk Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ci bayti kon nag foofu la euh, commission culturelle bëgg tey Baye Sëriñ dikk ci ak mbooloo mi ngir yoon wépp mën cee jariñu ngir jullit ñëpp mën cee jariñu kon ñu teewlu ko xam naa bu tënkee ay kàddu ba noppi lu ci matas leeralaat danañ ko leer incha allahu taala waaw jërëjëf bayti moom ba ma mu mu mu téye ma fa moom la joxoon kër gi lii bayti boobu la mu jox Mor Fall bayti moo ko yor waaye lii xëy mooy jëmi sëriñ Ceex maa ko yoroon waaw bayti nag daa wax na ngeen ko moytu ndax bal na eh, eh, jinne yi dañ fe nekk booy jë ma dëkk ci bunt bi bañ ko gon bañ gone yee tax moo ngi dëkk ci biir waaw na moo tax ma téye fi ndax gone yi na ngeen téye ñu ñu ko kër gi nag gu màgg la goo xam moom sëñ sax ci boppam sax daa béyti boppam daa wusul dal boo ma sax nekk ñu bari dañ koo fekk xanaa ku mu wóowu rek loolu daal laa fa nekkoon ak moom diir boobu nag am na gan ñu bari ñu ko ànd fekk ñoo xëy def maa leen daloo muy Cheikh Sadi bu Diop ak Issa Aw ak Mawud Ousseau bu ñëwee màggal ak sëñ Thierno Cheikh Cheikh Cheikh Takko Diop ci Louga ak Ablaye Takko daanañ fa dal ñaa fa nekkaloon nag mooy kilifa gi sama di sama kilifa di Cheikh Diop moom boole woon waaye li xam mooy liggéeyu gone yi li xam maa ko yoral muy di buub kër gi di bale di seet ak kër gi sëñ bi wax nañ ko war man lu ngeen man ndax am nañ fi dëkk ñoo xam ne ñi ku ñu daay yéen du baax ci bunt bi moo tax may dëkk ci biir ak gan ñooñu ma fi nekkoon noonu daal maa leen toppatoo bay di ba ak Isa aw ak Cheikh Tako Diop ak Cheikh Tako Diop bu Louga noonu daal laa fi nekkoon ak ñoom bu màggal gi ma daan dikit ndab yi ci bari man la koy jox waaye bu séddee ndaw yi bare Ceerno Isa Taal moo ko séddale si ndawi màggal gi moo ko daan ci li ma ci xam daal loolu ci la bokk diir diir ba fa nekk boo sëñ Mbàkke ma dina ñëw itam laaj na ma ni ma ndax ah kër gi ji nga ji fi nekk ah, ci gént muy nuyu mel ma ne ah, mel ne ay gone yu baree bare de gis naa ci loolu béykat boo xam itam gént naa fi ñeent fukki gaynde yoo xay gaynde ku dañ laa yem ci tiga bant dañ ko tël ci su ba ma dee laaj ko Seexul Xattaab mu ne ah yow da wut na ngay dee ma ne ko du ma dee ma dañ ah, maa dañ ma may wattu rek ko wattu boo génn génn rek la loolu du ma ci mën a dee li daal ci la ma xam bayti ci la bokk waaw mu mag mu mag sax ma yow it kilifa yi bari daañu ko fekk kenn du des waaye ñëpp dañ leen toppatoo bu baax a baax lii daal laa xam ci bayti ci loo fi nekk sëñ bi nag da nga war woon kër gi bu baax a baax ndax ay nit dañ fay yoo xam yi mu ñooñu dañoo mot a mooy ko daal loolu daal laa xam ci bayti di li ma fi nekk daal loolu laa xam bayti. mu mel ne bagage Sëriñ Tuubaa lu ci bëree bëri tey foofu. bagage Sëriñ Tuubaa itam bagage Sëriñ Tuubaa gaal yi xëy sëriñ na ko Jolof yu bëri fii la ko bàyyi woon bayti la nekkoon waaw. am na jamono am na sëriñ bi ñëw na ji man ñu jël fi ay yëpp waaye li teewul rek yi fi la ko bàyyi yëpp daal ko bàyyi woon bayti moom gaal yi sëriñ bi jëloon Jolof béyt leen nekkoon ba ñu ngi fi di bu sëñ Cheikh nekkit yaa ngi ba léegi gaal yaa ngi fa ñu ngi béyti waaw. lekk du sëriñ baax yeeg yi ci aju mu nekkoon béyti mooy xar baax yi mooy béyti moom boo sax du kenn du fekk rek leen leet kër googu kër googu warmaaloo ko koo xam ne ci daal béyt daal waaye fu ñu daa fa daal li laa xam ci moom ñam nii boobu ñu an béyt daal nga fi sëñ doo duggoon xaloo daal moom sëñ Cheikh doo sol daal waaw ñu mboolem ñu teel ñett ba fi lañu fekk ñu baax yëpp daan nañ ko fekk di ko seet li la laa xam ci kër gi. nee na doole suuf si ndax dafa mel ne mos ngay wax ne am na ko mos a wàcc bu liggéey fekk suñu saa ne ci koor. waaw ah, waaw. am na loo jëflante ah, waaw waaw loolu itam buñ ko mënee xam. ah am na am na koor koo xam itam fi la sëñ Cheikh woore bi mu wooree ba xam jant baa ngi bëgg a soot dugg na ci biir am ñu indi am néew bañ ma génnul man dem fi doole kër gi tax. ma ma ma ma tibb fa sëñ Cheikh too toogoon fa mu toogoon fa mu sol ay daal toog fa diggante ma néeg ba bitti bi ma tibb ci suuf leen neen sëñ bi nee na ngeen denc ko ba mu ngeen wax ko mu ne doole kër ëpp na defal nga def baax na wàññi dara loolu a xam-xam rek la waaye nit ñi néeg boobu ñu fi indi fekkoo fekkoo ma la ci biir nga tibb ci suuf jox leen it moo ma joxoon ko ñoom képp foofu la doole gi toll loolu waxoon na waaw kon ñeent fukki gaynde yooyu nga xam ne dañ la ko faa wanoon hmm. wax nañ ni na gannaaw bi mooy gaynde yi nga xam ne ñooy wattu kër gi waaw bëggoon nañoo xam nañu mel ni nga leen gisee ñeent fukki gaynde ci génn laa ne war a fayal quatre heures ba mu génnee itam da lañ leen a yeew ci ci ci ci ceq mi ci baat bi cala du we ak weñ tër bañ leen tiga yeew dañ ko tër suuf kenn tëmp ko ñooy tam yoxoon ne ma ñi ñooy wattu bayt képp ku nekk ci kër gi ci Darou Khoudoss ci kër yi ñii dañoo lay aar loolu moo ko laaj Cheikh Alxatta boo yow loolu di sama diggante maa doon dee ma ne ko doo dee man dañ ma ko woon rek. ñeenti ko ñu koñ bu ne fukki gaynde ngeen ñeenti ko ñu ñu ko ci ñu yeew lañ ci ay càlla la gis naa ko dee ma ne ko man kay du ma ci dend ndax ko gént mu am waaye nag Cheikh Alxatta ñooy ñooy wattu ñooy ñooy ku nekk dara wax dëgg ñoo ñoo lay gàll ñoo lay waaw di waaw. bi sëriñ Mbacke Madina laajee muy jënd ko ci góor maa ngi ci war melokaan la woon. loolu sëriñ Mbacke Madina ne ne ndax gis ma ne ko ci gént mu ne nu ñu mel ma ne ko mel ne ay gone yu ndaw te dañu jaar ci bunt itam dañuy jaar ci personne bi fi bunt bi ñu seele jaar ñoom mu ne wax nga dëgg noonu daan na leen gis. Ah, mu ne mi ngi nii maa ngi leen gis sëriñ Mbacke maa ngi leen gis waaye mënoo ma ko man ci génn laa gis sëñ Mbacke Madani ma ñu ngi nii toog ma ko man mënu ma leen gis mu ne mu ne mu ne yow mënoo leen gis ma ne ko gént mu ne nu ñu mel ma ne ko day ay gone la yu tuuti yu mel ne perantal bari nañ lool mu ne wax nga ngi ñuy toog waaye doo leen gis yow loolu sëñ Mbacke Madani moo ko ndax maam ñi fi daan féete ci biir kër gi lañ daan ñi fi nekkoon noonu daf fi daan waaye doowul bari nag ku bëgg nekk daal doo fanaan xanaa ñëw a dëkkoon ku mel ne Mor Seye Diakhaté nag fa la dëkkoon moom waaw ndax mbokk mi moo ko joxoon néeg waaw ndax fanaan. ak lenn ci rakkam. sëñ Cheikh daan fanaan ak sëñ Saliou moom sëñ sëñ fanaan yow amoon na woon néeg waaw. waaw gis nañu daal na war ma kër na kër gi lool nee boo see mu dëkk ca gannaaw bañ a dëkk ci bunt dëkk ci bunt bi bu ñu duggee ñi fi li fi jinne yi dañ fee dëkk te moom moo tax mu deen gàttal ndax jinne yi loolu lañ fi ay ay gone ci kër gi. sëriñ seen Tuubaa. waaw ci taxawaay bi sëriñ sëriñ Cheikh daa taxaw. waaw rawatina foofu ci daan taxaw cam ndax sëñ Cheikh nag boobu ku la amul waaye dafa wut ab groupe waaw kuñ naan kuñ naan kuñ naan Seck Kour Dieng dëkk Njaaréem moo yor machine ba moo yor kuraa ba waaw mu mos nañ cee wutoon wutoon ndax booba ay xeer lañ fi nekk waaye dañ fee sam dañ fee dañ cee wut dañ cee dañ dañoo def ci xeer yi yeew ko ci waaw Moussa Nkor Dieng dëkk Ndiaye moo yor moteur bi ngir wol maal kër gi tax mu def ko du ko am diir courant doo ko am loo xam ne bëgg nga ko ci waxtaan bi. Hmm, waaw loolu la ci bëgg a a loolu nag loolu maa ngi maa ngi lu baax rek loolu laa ci xam daal ci man ndax li xam ne guddul kër gi. waaye ma nekkoon naa sëñ Cheikh daal nekk yàgg waaw waaw. fa bokkaloon nekkoon ci ñenn ci mag ñi. ñi nga bokkaloon nekk nag mooy Mbacke Fall moom moom moom moo waxoon sëñ Cheikh mu andi ma ko waaw ak Cheikh Diop moom mu bëgg nekk moom doon doon kii foofu ci bëgg nekk Cheikh Diop moom Cheikh Khary Dieng Cheikh Dieng moom Cheikh Khary Dieng ñoo ak Mor Khoudia Lo waaw ak Sayer Dia waaw Moussa Tall nekkoon na fa. waaw kon xam naa ni comme gis nañu yow diiru fukki at ak juróom-ñett nga fa nekkoon sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma euh, da ngaa sëriñ Cheikh da laa yeewi wala fukki at ak juróom-ñett yëpp da nga koo nekk moom ba mu wàcc ab liggéey. fukki at ak juróom-ñett yëpp nekk yeewu ma daa faa tax sëñ Mbacké ma dina fekk ko moo tax mu demoon laaj yooyu sëñ Cheikh yeewu ma man gannaaw sëñ Cheikh laa yeewu waaw gannaaw sëñ Cheikh Mbacké laa yeewu ba sëñ Mbacké ma dina ñëwee daal laa dem sama kër waaw. waaw sëñ Mbacké ma dina moom moo la yeewee waaw moo ma yeewee daal ba mu nekk daal ma ñaanal ma dem sama kër. moom sëriñ Mbacke Madi tam tamit ak bayti. waaw moom moo yor yor moo yor moo yor bayti. wàcc waay la joxoon wàcc moom la boo ma dikkee rek dafa ñaan rek ni ma gërëm naa la sant naa la bu baax man ngaa toog sa kër boo soxlaa dikk dikk loolu la ma waxoon waaye waaye waaye noonu la waxoon gërëm naa la gannaaw ñëw naa man ngaa toog sa kër bu ko dee boo soxlaa dikk fekk ma fi rek seera nu suñu seerante. moom nu mu fonk woon bayti sëriñ Mbacke Madi. na ko sëñ Cheikh defoon rek la ko defoon mbaa la ko law moom daal wax nañu wormaal kër gi ndax lool moom wax la Cheikh sax booy see mu dëkk ca kaw dafa bañ jinne yi loole moo tax mu dëkk ca kaw ca diggante mu dëkk boobu dëkk ci bunt bi ci ca wàll waroon dugg waaye da li muy loole daa ci jinne yi muy bañ a day nit ñi moo tax Cheikh dëkkoon ci buntu kër gi loolu sëñ Mbacke ma dina ko mu mboolem doomi Cheikh noonu lañ ko wormaale woon. mboolem doomi ñëpp. sëñ Mbacke ma naa ñëpp daal ñëpp ni leen sëñ Cheikh defoon kër lañ ko def rek ba ci ay xam waaye ay xam fi nekk doon la ko def ku mel ni sëñ Cheikh Sadibou Diop daa wax ni ak sëñ Abibou Mbacke daañ fa gane si sëñ Cheikh di yàgg lool moom ak Isaa ak Baydi ba ñooy doom daan fi ñëw Baydi daan jóge kees màggal waaye Cheikh Sadibou moom dafa daan ñëw lu yàgg di gane sëñ Cheikh sa sa sëñ Cheikh laaj ab kaamil mas na maa laaj kaamil ab téere ci bayti ful ko ful ko mosoon moo yanu ko yét ko ca sanc mu jox ko Cheikh Mariama daam ni ko na ko bind yow dong bindkat yi nañ bind xasaay bi at mooy dajale xasaay yi nañ bind yi ci des waaye yow Cheikh Mariama daam na nga dag ful ko yow ko bind waaw mu seex jëmm maa daal ful ko ba ma nekk xam ma la ko sëñ maa laaj maa ko yéen a béykat ba fi yokk kër Mor Diop jox ko mu ñu woo la moom seex jëmm maa mu jox ko ne mu di ko mu bind mooy ful ko bi fi nekkoon boobu sëñ tubaab bi. ful ko biir béykat la ñu woon. ko ba ca biir béykat la maa ko maa ma dañ ko laaj ma ne ko kër ga ma yor mu ne kër gi lépp yaa ko yëngu ka yëngu béykat yi li nga yëngu mooy li ma dëkkee mu ka yëngu loola moo yëngu wàllu mooy yëngu béyti da nga te kër jox soo fi ma nekk kon ku yëngu ku nekk béyti yaa ko yëngu ci lii ci lii sa liggéey demal andi kaamil ba téer ba ma yanoo ko béyti yóbbu ko kër moo jóosi jox ko sëñ Tuubaa moo waral sëñ Maram daa mu jox ko ko mooy digg bu mag boobu waaye moom la sëñ Tuubaa yoroon. mel ne sëñ Cheikh daana tere ñu dox ci kër gi guddi. waaw sëñ Cheikh daana tere ku dox ci kër gi guddi ndax dafay dox dafa bare nee bu tëdd jotee na ngeen na ngeen walmaal kër gi waaw. biir bayt bu fa masaa nekk daa ndax daa nan ko ko fekk. biir bayt it daa am ñu ko fekk waaye day ko mu wóorul doo ko dem. daaw sol daal itam. sëñ Mbacke Madina noo ko noonu rek ñooñu am nuñ ko ne yore looy dénk uh, jullit rawatina murid yi. waaw ah. ñu gën a fonkaat bayti. waaw ah. ñu ko war maal. kon nag bayti moom lu ngeen gën a fonk. ngeen ko xam ne sëñ Cheikh bàyyi na ma secret boo xam ne nangu kenn def yow jaaxaan ko di goyti nañ tam màggalu màggal gi di ñaar màggalu tamxarit wi hmm. ñay suroona nga xam ne mu ngi dëgmal si incha allah hmm. dañ gis ne bisu seexul xadim la hmm. te ñenn ñi am ci ñàkk xam-xam ba bu ñëwee sax wàccuwaay bañ ko war a jox duñ ko ko jox yéen ñi nga xam ne nekkoon na ngeen sëñ Cheikh gis wàccuwaay bi ñu màggal gi ak màggal li sëñ Tuubaa digee Cheikh wax ko ci hmm. nan ban soññee ngeen ci def ak lan ngeen man a wax mu fàttali ko ci màggal gi ngir ñu gën a fonk màggal gi màggal mën naa fonk ndax bis mooy bi nga xam bis bi sëñ Tuubaa jóge ci njaareem ñeen di ko Tuubaa bis boobu moo tax sëñ fonk daa wax ku ci ku ci ñu ba say bakkaar màggal diggee da dañuy buub Cheikh Moustapha da daan daan na ci buub bisu màggal buñ ne mu yibtee na ñëpp daana xam ne nit ku fanaan ci Tuubaa ci bisu màggal gi bu subaa amatoo dara ci bàkkaar loolu sëñ bi daana ko ci wax kon nañ fonk waaye di kenn lu waaye la ko la nga war a te lu waaye man ci mbuum na ko def ku mbuum ñu fa say bàkkaar yëpp loolu sëñ bi daana ko wax. mu mel ne Serigne Cheikh amoon na ci taxawaay bu tax ñu naan màggal ko sax ñu def nañ ñëw ko moomel Serigne Cheikh ngir waaw ah, Serigne Cheikh moom amoon na ci taxawaay boo xam ne am na at moo xam ne kooku dañuy màggal kenn kenn du ko def ren Serigne Cheikh ne ko fii maa ngi noyyi muy am daal am na kooku sax loo wax ci moom njël wax ci rajo waaw nee daal maa wedd na ko daal. mu màggal ba kanam la ci tegoon. a màggal nee na bañ ko bëggee aaye dani man màggaloo sama kër laay bañ ko bëggee taxaw di ngeen ne ko de aaye loo màggaloo sama kër laay màggal ku dee màggal ko dama rey dama day yow sama reeru kaay laay màggal mu màggal bu njëkk loolu daanaka sëñ Cheikh daanaka wax. sëñ Mbàkke Madina ba ci. sëñ Mbàkke Madina ñu topp ci moom ñëpp ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci sëñ Dan ba ci sëñ Xaadim waaw ba ci sëñ Amam yi yëpp ni ñu dañ defal ak sëñ Mbàkke Madina la ñuy def rek dañoo bëgg màggal gi jaay rek dara yàqu ci kër gi waaw. kon gi daal màggalu sëñ Tuubaa. màggal gi daal màggalu sëñ Tuubaa sëñ Cheikh Bakkanam la ci ajoon bi mu jógee ay rakam noonu ba kii bi nekk ba tey maa ngi ca loolu laa ci xam. daan am kilifa yu daan jógee ci yoonu murit. wa waaw waa Mbacke waa Mbacke ah, sa yii ba sa yii ba Ndar Mbacke Ndar mbokk sëñ Tuubaa la waaw ñooñu ak Isa Aw moomu newoon Kaolack ak Baydi Ba ñu daan ñëw ak Cheikh Ba Tàkk Cheikh daana mel itam suñu cheikh daana la faral waaw am na kilifa yoo xam daan woolu yoo xam bu guddee ba guddi ma woo ma jëli ma jëli ko ñëw sëñ lu yàgg ma doo ko ma delloo ko doo ko tëri am yu mag yooyu daal ñu si bari guddi daan gisee daal guddi mag bu guddee kon looy tëjee say kàddu ci nit ñi jullit yi ak taalibe yi ñu gën a fonkaat. daal waaw kon kër gi. ah kon nag màggalu kër gi moom béy ci maanaam waaye gën a fonk ñu ngi gën a kawe rek ndax fa la ñu doon ko fonkal bëgg nañu bëgg fonk ko ah te gën gën koo warmaal gën koo jàpp. loolu digal ñëpp ñiy màggat daana ko wax mën ngaa tëj sa kàddu yu di leen gërëm ah di leen xaw a ne loolu man laa nekkoon ci kër gi waaw maa ngi leen di sant gërëm loolu loolu ci kër gi ci loolu laa fi nekkoon itam jërëjëf sëriñ bi euh, Baye sëriñ Fall Ngik Baye sëriñ Fall Ngik euh, moom sëriñ si Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma euh, Daarul Xuddus jërëjëf ci kàddu yi yi jégg lu baax ndax xam ngeen ni sëriñ bi mag la te aw yaram itam sawarut moo tax sax wax ji nam ko war a gën a kii dëgg-dëgg kiiwul waaye nag liñ ci mën a tënkaat rek mooy daal mooy mi ngi xam le ni ndax lépp luñ ci wax rek moo ñu ko wax te mi ngi ni toog te itam yàgg nañu ko nettali lu jiitu tey Euh, te it nee na du ci waxee wax lu lu gudd mën na ci wax lu amul te bëgg na lépp lu mu ci wax mu doon lu wér loo xamante ni mën naa dóor loo xam ci alxuraanul karim ndax jëmm jooje ku nekkoon nag moom 1955 la dugg ci ay loxoom ba 1978 muy ñaar fukki at ak ñett juróomi at yi ko jiitu muy 55 ba 60 moom jaane woon ca daara ja daaru salaam jolof daara yi sëñ Habibou Dieng ak sëñ Basirou Thian waaye 60 nag bi Baye Mbacke Fall waxeeg Serigne Cheikh. ci la làmmiñu Baye Mbacke Fall ci la ci la ñëwee ci kër gi de 1960 à 1978 moom tàggoot ak Serigne Cheikh moom fukki at ak juróom-ñett yooyu lekkam ak naanam ak yëpp moom mii moo ko daan yët Serigne Cheikh di ko defal di ko toppatoo kon ci biir loolu nag wax na ni Serigne Cheikh fonkoon na kër gi yëpp kër gépp la joxoon war ma waaye fi ñuy wax bayti muy kees gi nga xam ne ci la daqaar gi ne muy jëmmi bayti moom Serigne Cheikh mosu faa dugg ak daal kenn nit sañu fa woon a dem te wóoluwuloo fa képp ku mu fa ku fa fekk rek moo la fa woo wax na itam saa bu daan jàng alxuraan moom Serigne Cheikh Ahmadou mbakki foofa la daan dem yéet fa di fa jàng alxuraanul karim kon loolu da si wàcc waaye bu mu joxoon kër foofu kees googu daana tere itam guddi ay nit di dox ci biir kër gi daana tere ay nit dox ci biir kër gi guddi daana tere nit di fi sol ay dàll Serigne Cheikh ci boppam nee na loolu sëñ Mbacke na bàyyi sëriñ mi nee na sëñ Mbacke Madina na ko wax moo ne ko li tax Serigne Cheikh bi mu fi nekkee mu dëkkoon ci bunt bi li ko waraloon mooy kër gi dafa am ñu fi nekk ñu bari doole nga xam ne ñoom xajuñu kenn te mën nañoo lor nit ñi ndax bu dëkkee ca biir biir diggante bi nit ñi dugg ci buntu kër gi di jàll ca kees yi ca biir mën nañoo day ñoom daane bari na ko fi lor sax ñoom laalu ñu la waaye seenu xeet rek wala buñ la jegee rek man mën nga am jafe loolu nag la Serigne Cheikh bañoon mu dal mbooloo mi gàllankoor mbooloo mi mu taxoon Serigne Cheikh dëkk ci bunt bi nga xam ni nit ko agsi rek yam ci moom mu ñaanal la nga wax sa soxla mu faj sa aajo ñaanal nga dellu loolu ngir éviter gàllankoor nit mën koo am nee na bayti moom du fa du fa woo n'importe qui kon nee na loolu suñ mbàkke mat na moo doog ñëw ne ko boo gisee Serigne Cheikh dëkkoon ci bunt bi kër gi dafa bari doole am ñu fi ne te duñu leen gis te bëggul nit ñi di loru moo tax Serigne Cheikh ci bunt bi ba kenn du mën a àgg ci ñoom loolu ñu bàyyi ko xel bu baax nee na it Serigne Serigne Mbàkke Madina itam laaj na ko fekk nee na boobu moom mii ci biir bayti dafaa fanaan ba fa fanaan itam mu gént gis jinne yi muy jinne yi nga xam ne ñoo toppoon Cheikhul Khadim te nekk biir bayti loolu ci jamono sëñ Cheikh la ko gént ñu dem a dem ba sëriñ Cheikh jóge fi fa ko génte woon toog fa sëñ Mbàkke mën na toog fa bis nee sëñ sëriñ bi jekki xool ba nga xam ñoom ñaar rekk fi ne kobas ko ni ko sëriñ mu ko Mbàkke mu ni ko ah, dëkk ci kër gi jamono yi nga fi nekkee ndax daa nga leen gis mu ni ko mës naa leen gis ci gént sëriñ bi ne ko nuñ mel comme nee na gis na leen ci génn nag sëñ bi ne ko nuñ mel mun ko dañuy bari lool te seen bopp yi rëy dañ mel ni ay perantal te bu ñuy jaar ci bunt yi duñ jaar ci bunt yi ci percé bi la ñuy jaar maanaam fi ñuy korosé bunt yi foofu la ñuy jaar te mboolool la ñuy doon te dañuy mël-mëli bari lool doon ay perantal seen bopp yi rëy nee na bi mu décrire ni ñu mel ba noppi suñ bàkk mën daa yëkkati loo xam ne ko ñi ngi ñi ngi nii toog maa ngi nii jàkkaarloog ñoom yow mënoo mënoo leen gis ci lu dul gént la man maa ngi nii di leen seen nee na fi ñu toog suñ bàkk mën na mi ngi joxoñ loxo bi di naan ko ñu ngi nii toog ca sax indi lay xisa boobu ne ko boo gisee nag sëñ Cheikh dëkkoon ci bunt bi ñii dañoo bari bari goo xam ne dañoo bari doole kuñ dajee rek mën nañ laa lor moo tax sëñ Cheikh dëkkoon ci bunt bi ngir bañ nit ñi agsi ci ñoom nee na gént ga loola tax sëñ Cheikh sëñ Mbàkke ma leeral ko ca loola la ca toppi nee na jamono yi ko sëñ Cheikh joxee bayti foofu tëdd na fa génn fa gis fa fukki gaynde ñeen fukki gaynde koñ ñeenti koñi kër gi kër gu ne fukki gaynde lañ fa lañ fa lañ fa tër la ñoo ñoo fa taxaw te gaynde gu ci ne dañ koo yeew ci ceq bi tëral ko ci lu mel ne ak tige te gaynde yi ñuul kukk ba yu man ñiin fukk mu gént ko bi mu xëyee moom bàyyi sëriñ mi neen dafa xaw a jaxle xaw a tiit lool dem nettali ko sëriñ Chafal xataaba sëriñ Chafal xataaba ne ko ah, yow de armée kër gi nga gis yow de ragal naa ne dangay faatu ndax loolu kenn gis leen ku ko gis ba pare nekkaat fi daal du du du yomb mu ne ko waaye man jàpp naa ni dara duma ci fekk ndax man dañ maa wattuloo kër gi rek man ginnaaw dañ maa wattuloo daa am ma wan rek ne ma yow ni ngay wattoo ci zahir am na ñuy wattoo noonu ci baatin nee na ba tey bi maa ngi koy nettali te loolu nee na ci jamono ji Serigne Cheikh la woon ñooñu mooy armée bi nga xamante ni ñooy wattu kër gi kon loolu tey loolu am nañ ci yeneen riwaayu wér yoo xam ni ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci kër gi xam nañ ko te gis nañ ko muy ay gaynde yoo xam ni kër gi ñeen fukki gaynde koñ bu ne fukki gaynde ñoo fa ne gaynde gu ne da ngaa ñuul kuk ceen gañ lay takk sa baat lañ koy takk te ak tigee ci lañ koy takk ñooy ñooy wattu kër gi ci baatin kon loolu dana tax ñu gën a warmaal kër gi bu baax euh, bàyyi sëriñ mit nee na waxtu wi nga xamante ni ñi ngi koy doog a jox caabi kër gi yët ko ko ne ko kër gaangoog ka ko jox caabi da ko delloo ne ko kër gi dafa diis nee na kooku de wax suñu seex suñu seex ne ko wal ma ko ba ñëwee mënu ko loo wax diw mënu ko ah dafa maa ñëw ne ma kër gaangoog mënu ko dafa diis suñu seex teg ci ne ma danga nga koy yenu ma ne ko ah Mbàkke yéenuwuma ko de waaye kër gi diisaay bi mooy dafa bari yu fi nekk ma bëggoon nga nga ñaanal ma ba bu ma ci am benn ndok du ma ci am benn gàllankoor loolu ndax diisaayu kër gi mooy li ma fi dégg ci baatin sëñ Cheikh ne ma am na fi de waaye fexe la jubal loolu mi ngi nii toog moo ma ko nettali ba taay diisaay boobu ngay wax ci kër gi am na fi de waaye fexe la jubal kon képp ku ne ci kër gi te te jubal li nga bëgg war nga ko mën kon sart bi rek ku fi bañ a loru bañ am gàllankoor mooy nga jubal moo xam ku fa nekk la. moo xam kuy ziyaare si la moo xam kuy romb kër gi kon képp ku fa ne war ngaa jubal bu wax nee na loolu ma sëñ Cheikh wax fexee la jubal nee na ma dem bind loola ci aw kayit def ko muy sama ngànnaay ba tax na kon diiru 18 ans yi ma nekk moom jubal googu def naa sama lay kàttan ba loolee tam am na koo xam ni doon na doon na testé sama jëmm ci sëñ Cheikh ba xam jubal googu maa nga ci am déet yaakaar naa soxna sos dafa ñëw sëñ Cheikh ne ko soxna Aminta Sey ne ko bëkki na yi fi nekk nuñ def sëñ Cheikh ne ko kenn amu ci solo de waaye mu ne ko sëñ faal gi mu ne ko waaye kenn tanewu ko ci waaw ñoom ñëpp a yem waaye ba mu nee na soxna Aminata Sey ne ko sëñ Fall gi nag mu ne ko kenn tanewu ci kon xëy na jubal googee mu doon nekk moo tax tane googu sëñ Cheikh tudd ko loolu day tegtale ne kon ku fi nekk war ngaa gën a góorgóorlu bu baax nee sëriñ Cheikh ci boppam euh, jamono yi fi masaa nekk daana am kilifa yu ko fi fekk tudd na ci ku mel ni sëriñ Issa Aw alxaaji Baydi Ba Cheikh Sadi bu Diop sëriñ Cheikh Takko Diop Louga sëriñ Haydara Mbacke bu Daarul Moxti sëriñ Modou Assou Mbacke bu Mbacke Bawol ak sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar sëriñ Habib Mbacke Mbacke Bawol ak sëriñ Daaru loo Loopuut sëriñ Daaru moom waxtu guddi la ko sëriñ Cheikh daan recevoir ñooñu lenn la ñoo xamante ñenn lañ rek ndax ñi fi daan ñëw moom kenn xamuñu toll ndax mboolem kilifa yi diine yi dañ fi daan ñëw waaye ñii moom dañ daan gane sëriñ Cheikh di fi yàgg di fi nekk te ku ci ne sëriñ Cheikh daana waxtaan ak yow waxtaanu xóot ak waxtaan wu baatine ci kër gi loolu itam diiru li mu fi nekk euh, moom euh, remarqué na ko ci diggante kilifa ak sëriñ Cheikh nee na itam jamono yi fi Serigne Cheikh di nekk am weeru koor woo xamante dafa toll ci waaja a dog am new bu ñu fi andi te waxtu wu dog la Serigne Cheikh génnul te ñooñu mel ne ne yàkkamte nee na fa Serigne Cheikh daan ma dem tëbb ca suuf sa def ko ci mosuwaar jox leen nee waaj boole leen koog néew bi ba Serigne Cheikh génnee ma daanu ko ah Mbàkke de am nañu fi ñëwoon yorum ne waaye daa mel ne ñoo xaw a yàkkamte booba yaa ngi ci biir waaye nag fi nga doon toog day laa tibb ci suuf jox leen Serigne Cheikh na ma doy na sëkk loolu sa ëpp na xanaa xamoo ni wenn pepp sax ëpp na ci kër gi kon ku ne xam na ni am néew lam soxla mooy ak texe fa sëñ Cheikh daan toog mu tibb fa suuf jox jox ñooña ngir yaakaar sëñ Cheikh ne ko loolu sax ëpp na dooy na sëkk kon loolu day tegtal ni kër gi am na wàccuwaay bu baax kon mën naa yóbbu ku ne àjjana boo xamee wàccuwaay bi jox ko àqam kër gi lu ne nit mën na ko ci amee muy àdduna ak kon li bàyyi sëriñ wax lépp daanaka lu yaatoo yaatu la buñ ko bëggoon a tënk xëy na waxtaan waxtu yu mën naa gudd waaye nañ xam ni daal moom neena lépp lu mu ci wax rek mën naa bañ a gudd waaye lu wér lay doon gàtt lay doon wàcc waaye boobu sëñ Cheikh joxoon itam moom la sëñ Mbàkke mën na jox kër gi sëriñ Mahmoudan Xarilo sëriñ Aliou euh, ba ci sëriñ Xaadim ba ci sëriñ Ahmadou Moxtaar mi ak mboolem sëriñ Saalihu ak mboolem doomi Cheikh Moustapha yi wàcc waaye boobu lañ joxoon kër gi ndax ñu ci baree bare ci ñoom mën nañoo sol daal léeg-léeg waaye kees ga ñuy wax bayte ak daqaar gi ak la ko wër moom kenn ci doomi sëriñ Mouhamadou Moustapha yi dafa sol daal fonkoon nañ ko wormaa lool sëriñ Cheikh it ñoom ci boppam dana leen daa wax ne guddi bu leen dox ci biir kër gi kon loolu ñu bàyyi ko xel màggal geet li ci sëriñ bi tëjee dégg nañ ko nee na sëriñ Cheikh bakkanam la ci tegoon kooka mu wax ci mbàkke itam dafa am lu wax ci màggal gi am la ko sëriñ Cheikh tontu na mu waxee rek la ko sëriñ Cheikh tontoo waaye ku ne xam na sëriñ Cheikh ab yaram ak tegginam waaye fulla nag amoon na ko ba kookee ne màggal gi am ren sëriñ Cheikh tontu ko tontu loo xamante ni ca nam waxee ku ko dégg xam ne sëriñ Cheikh am na la kon ñoo xam ne sëñ Cheikh joxoon na ko wàccuwaay bu baax tegoon na ci bakkanam ndax fonkoon na kër gi itam ba nee na teel naa wut lu mel ni ab groupe boo xam ne daan leeral kër gi te booba sax dëkk bi amul courant nga xam ni sëñ Abdou Sakkour Abdou Sakkour Dieng moom la joxoon machine ba moo ko daan toppatoo booba kër gi daana leer daaru xudus gépp daana leer nañ ci ay làmp te booba tuuba amagul courant ngir sëñ Cheikh xam doolee kër gi ak wàccuwaayu kër gi kon nag lu ko waaye mën a gën a warmaal lu ko waaye gën a mën a jox ci dayo na nga ko def te bayti buñ ne bayti rek bul jàpp ne ñeenti miir yooyal waaye diggante li liwaal xam li muy mbaar mi muy jàkka ji muy ndax wax na ma ko bërki dem ne ma ba kër sëñ Saalihu moom sëñ moo Modou Moustapha ba ci kër sëñ Aliou googu tey muy fi sëñ Ahmad Tindoon ñoom ñëpp nee na ma kër gi ci biir bayti la woon natt bi rek moo moo séparé kër gi noonu génnee tali yi ak mbedd waaye loolu lépp ci biir bayti la woon sëriñ bi wax na ma sëñ Tuubaa def na fa xalwa joo xamante ni bu tab jee ba mënta jiite julli sëñ Daaru Xasan Njaay lay fëgg ngir mu tax mu jiite waxtu wi noonu foofu la ko defee ci biir bayti kon nañ gën a xam ni fu waay toll foofu ànd ak teewlu rek loo fa ñaan suñu borom def na ko waaye nag buñ ko jàppee am marché wala mbedd bu ñuy ay mbedd yuy jaar di jàll rek waaye nag rawatina nag ñeenti mbir yi waaye li wër école beeg lépp ci biir kër gi la woon kon fépp mat a war maal fépp mat a fonk fépp mat a ziyaare si jéem koo xam murit bu ne war naa yittewoo lan mooy bayti tax mu jógee fa mu war a jógee ñëw xam ko jox ko wàccuwaay bi mu ko war a jox bàyyi sëriñ bi nag mag la moo xam lépp lu mu ciy wax da ciy bàyyi xel boromam ndax koo xamante ni nekk nga ak Serigne Cheikh ñaar fi at ñett lu jiitu loolu tam nga nekkoon sa waajur ba tey say at dégg jege juróom-ñeent fukki at ba mboolem ñi fi nekkoon tey man bu ñu lim ñi des ci ñi nekkoon Serigne Cheikh ci biir bayti xëy na bu ñu nee benn ñaar du ko ëpp ci bëkk néeg daanaka moo fi des kon te wóor na ko moom adduna amatul lu mu ciy wut wala dara ji ju mu wutal kenn wala ji mu wutal boppam kon lépp lu luñ jox diggam ak boromam la moo tax mu ni wax ji mën naa bañ a gudd waaye lu wér lay doon lii daal gis nañ sëñ Cheikh joxoon fa wàccuwaay bii bay kon nag mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ciy soññi ñëpp di soññaan ñëpp ci màggalu Isrul Muharram gi ñoo xam ni màggal gi màggalu Serigne Touba la te sëñ da koo fonkoon lool moom mi daana wax ni sëñ Cheikh daana ko fonk ba daawul bëgg sax nit ñi bu ñuy rang di ziyaare du bëgg ku leen bëmax du bëgg ku leen jànni du bëgg ku leen sonal ndax wàccuwaay bu mu joxoon doomu aadama yi ciy ñëw diir bu lim fi nekk ku yërëmoon nit ñi la nee na masaa tàng-tàng day génn yenn ci mbaar mi nit ñi di ko nuyu di ko nuyu ba nga xam ne da ngay dem dana upp sëñ Cheikh ba loxom bi toxoor lépp waaye gis sëñ Cheikh coono bi moom day fàtte bopp ngir warmaal ngir ngir ngir yërmaane ji mu jox doomu aadama kon loolu ñu bàyyi ko xel xam ni kon màggal gi bu ñëwee kenn ko ne na mujj na at yu mujj yi njawaan balankaar bi daan upp sëriñ Touba ca njaareem nga xam lu mel ni wantaay lay doon dañ koy indil sëñ Cheikh di ko xëcc ngir mu am ngelaw ngir tàngoor bi ndax sëñ Cheikh danaan yendu ci biir ci biir kees gi kon ñoo ngi sant bu baax a baax sëriñ bi eh, di taxawlu fii rek di ñaan suñu borom guddal aw fanam lool te wéral ay cëram ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Touba liggéey yéene ko liggéeyal sëriñ Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma mu àggale ko ci sagoom te lépp ñu ànd ko ak moom di sant itam waa diwaan yëpp ci turu sëriñ Ahmadou Makhtar xalifa Cheikh Mahamadou Moustapha mi joxe ndigal li ak sëriñ Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma ak mboolem jëwri ñi koy jàppale yëpp eh, la ko tàmbalee ci jëwriñu kër gi sëriñ Cheikh Mbacké Madina ak mboolem njabootuk eh, sëriñ Mouhamadou Moustapha gépp waaye itam di sant Serigne Mbacke loo mi nga xam ni tam ku ne xam ne taxawaayam lii lépp ci yitteem la ak gëstu bi nga xamante mi ngi koy def ci kër gi ak euh, commission culturelle bi mu ko seqal gis nañ ñëw na fi waxtaan ak Serigne bi itam ba léegi ñu ngi ciy jokkoo mu def ci yitte Serigne bi mi koy ñaanal suñu borom àggale yéeneem ndax moom li mu bëgg rek mooy nit ñi xam lan bayti xam daaru xudus waaye yéen équipe bi moo fi yabal itam Serigne bi mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal euh, lu rafet ci kàddu yi rek ñu ngi sant suñu borom lu ci doon ay rëcc rëcc rek ñu ngi koy jéggalu te xam ni Euh, kàddu yi kilifa ak kàddu yi mag saraa ko yombul waaye nag lu ñu def ci suñu kéemtalaay kàttan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.